dale na jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gi di réew mi quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu lu jëm ci wàllum trafic passeport diplomatique yi nga xam ne am na ñaari député yoo xam ne ñoo ngi leen si doon tudd ñaari député yi benn bokk yaakaar te ñu dindi woon seen malaanu kiiraay di Boubacar Biaye ak Mamadou Sall tey ji la ñu leen di déglu yéenekaay gi di réew mi quotidien ci xëlim ak Assane Samb nee na dina jafe loolu Sénégal génn ci scandale bi ci giraawaali bii nga xam ne jëm na ci wàllum trafic passeport diplomatique la ko waral bokk na ci ay agent de l'État ñoo ko jël di ko jaayee di ko sàmm ci marché marché bi yéene kaay gii di Vox Populi xëy yu wax ci beneen détournement boo xam ne am na ci trésor public yéene kaay gi nee na détournement bi toll na ci 4,6 milliards yéene gi nee dikk division des investigations criminelles am na ñaari percepteurs yoo xam ne teg na leen loxo kenn ki Mbàkke la dëkk kenn ki Saint-Louis la dëkk yéene kaay gii di Libération ñaari inspecteurs yoo xam ne jamono ji ñoo ngi cab garde à vue journal bi xëy di ñu xibaar naan ñu détournement yi nga xam ne moo am ci réewum Sénégal bëri genn xeetu bëri koo xam ne fu ko na ko ndax fan nga xam ne moom la ñu génn doon ngeen ne poste détournement dafa am ak fi nga xam ne mooy ca diwaanu Lonaas foofee fépp ñoo ngi fay tudd ay détournement yéene kaay gi ne na léegi dafa mel ni pandémie las yéene kaay xëy duñu xibaar gi nga xam ne am na poste maanaam ëpp na 4 milliards journal bi du Source A nee ñi nga xam ne ñoo ngi di tudd ci lu jëm ci wàllum trafic passeport diplomatique maanaam présidence ak ministère bi ñu dénk wàllum affaires étrangères agent yooyu léegi ñoo ngi am ay retour de parquet lan moo ko waral journal bi xëy na si maanaam di ko càmbar yéenekaay gi dala ko di cee ñu xëy fekk fa Omar Dia Sudes daat nay wax ne violence bi nga xam ne maanaam moo am ci université li ko waral mooy condition de travail yu catastrophique yi maanaam moo ko waral mooy jafe-jafe yeeg nekkin bi nga xam ne maanaam moo jafe lool ci njàngale mi nga xam ne jàngalekat yi ñoo ngi si ak nekkin bi étudiants yi nekk loole rek moo waral violence bi nga xam ne moo am ci biir université yi moom Omar Dia daat nay wax ne on est très mal de morale aux étudiants yéenekaay gi de Cheikh Omar Anne wax ne étudiant bi faatu ca université Alioune Diop ba sa Bambey kooke nag li mu lekk faatu ko waaye nag dafa amoon benn jàngoroy res moo ko faata yéen a kaay gi de réew mi ko di cee ak sud ko di cee xëy duñu xibaar naan ñu ñi nga xam ne ñooy kilifa diine yi jamono ji nag ñoo ngi dox tànki jàmm ngir nag élection locale yi nga xam ne moom la ñu dëgmal lépp ànd akuk dal journal bi nee na yi di imam yi di ulema yi ñoom ñëpp daje seen biir ngir waxtaan loo xam ne jëm na Antoine Diome tere na ko ci biir réew mi yépp yéen i kaay gi xëy du ñu xibaar naan ñu Ousmane Sonko yàq na musiba ak mbelengaana militant yi nga xam ne ñoo bokk Pastef ak militante yi bokk Pastef ndax nee na Pastef jamono ji am na si militant yoo xam ne maanaam jëf ju ñaaw ak doxalin wu ñaaw wi nga xam ne moom la ñu doxee maanaam jégg na dayoo Ousmane Sonko daal di wax na ci investiture yi gis na si loo xamante ni lu doy waar a waar la ndax am na ñenn ñoo xam ne biñ leen investiru la maanaam mer nañu ba foto am na ñoo xam ne gedd nañu am na ñoo xam ne nee nañu dañuy def vote am na xam ne dañoo bank seen loxo te lii lépp nag ci biir Pastef la lii muy aw doxalin ak aw jëfin woo xam ne ñaaw na ba jéggi dayoo Ousmane Sonko ne ñun sax dafa mel ni ñoo raw ñi ñuy xas moom Ousmane Sonko daal di wax ne jamono ji am nañu quantité waaye nag qualité bi des na lu baree bari coalition Yewwi Askan Wi maanaam comportement yi ñaaw yëpp boo ko xoolee quatre vingt pour cent ci Pastef la jugee yéenekaay gi de la Témoin ak réew mi quotidien nee na njiitu réew mi di président Macky Sall tey jii dina amal ab conseil présidentiel jëm ci projet de loi bi nga xam ne aju na ci maanaam sunu pétrole bi ak sunu gaz bi nan la ñu koy sàmmee ak xaalis bi nga xam ne moo fay bàyyi ko nan la ñu koy doxalee opposition bi ak société civile bi pouvoir bi ñoom ñëpp tey jii la ñu koy waxtaanee yéen i kaay gi de direct news xëy dañu xibaar nan ñu Léopold Sédar Senghor bëgg-bëggam ba mujj ba léegi kenn respecté wu ko ndax moom bëgg-bëggam mooy bi mu faatoo maanaam ñu yóbbu ko Joal te ba léegi nii gars yi respecté wuñu ko yéen i kaay gi di Vox Populi xëy dañu xibaar nan ñu ca département bu Linguère am na benn commune bu tudd Gassana commune boobe nag dafa am benn jaaykatu pharmacie boo xam ne dafa jàppale benn élève ngir mu yàq biir ba ndax élève bi dafa ëmb ñëw wax ko pharmacien bi na ko man damaa ëmb te damaa bëgg a yàq ëmb bi pharmacien bi nag dafa lànkoon kandaare bañ koo jàppale bi xale bu jigéen bi insisté si la ko jàppale jox ko ay doom mu daal di koy naan ba mu demee seen kër si la commencé sañe maanaam di génne deret ay waa waajuram gis ko nag jël ko yóbbu ko hôpital ñu wax ko ne ko kii da doon yàq ëmb bi seen waa kër dem gendarmerie ci la ñu tegee loxo ki nga xam ne mooy jaaykatu pharmacie bi yéen a kaay gi di réew ñu xibaar naan ñu mbir mu day war am na dafa am benn xale bu jigéen boo xam ne ñaar fukki at ak juróom ñett la ma waaye bu jigéen boobee dafay jaay boppam maanaam ab prostituée la waaye nag dañu ko war a takk ñaar fukki fan ak ci weeru décembre xale bu jigéen boobe nag ngir def benn mariage boo xam ne bu toj lay doon dafa sàcc lu toll si juróom benn ci ay coupon tissu brodé fi nga xam ne mooy benn boutique ci jëppal teg nañu ko loxo moom xale bu jigéen boobee nga xam ne ab prostituée la war a def mariage nag 24 décembre ndax mariage boobu du yàqu ma ngi ci réew mi gi dee sat xëy ci kaan Cameroun daan nay wax ne ko bëgg a dàq ñi si ko bëgg a bàyyi benn yoon journal bi nee na jiixi jaaxa ya bëri na ci lool yéenekaay gi du sunu làmb ñu xëy fekk fa Aziz Ndiaye ginnaaw nag bi Tapha Tine daanee Boy Niang Aziz Ndiaye nee na Boy Niang nekkatul seen priorité